jeunesse patriotique du ne opposition nguur gi ne téeméer ci électoral lay waaj maanaam la bëgg yi nu dëkkmal yéenekaay bi ne loolaa waral manifestation bu njëkk bi opposition bi amal ci nguurug Bassirou Diomaye Faye gi jàpp nañu ko ñaar fukki fan ak juróom-ñaar weeru septembre ca place de la nation lañ ca jublu mu ne mooy jëmmal càkkuteefu askan wi ngir élection yu leer nañ am ñoom waa atel seen càkkutéef ci nguur gi fi ne tey it yéeni cabinet bëral nañu ko démb Les Échos ne weesuwul élection yu leer nañ ndax Pastef mii danoo waral ma ngay gonfle di gën a rëy engagé na it combat bi journal ba ne atel mooma jugee na ci juróom ñaar fukki parti ak mouvement dem ci téeméer ak fukk ñaar fukki fan ak juróom-ñaar weeru septembre bi it danañu amal seen rassemblement ca place de l'Obélisque tribune ne atel seen càkkutéef gu njëkk gi ñu béral démb yéenekaay bi ne mooy nanu amal ay waxtaan yu yaatu waxtaan yoo xam ne dana tax ñi bokk ci langue politique bi yëpp gindeeku ci élection yii di ñëw naka lañu koy amale leader yi itam danañu sumb pôle juridique ngir dem kalaame ji yëfee ca toitekaay yi ne ci réew mi lii quotidien ne bu loola weesoo yi daanu amal ab tournée ci këru kilifa diine yeeg kilifa aaday ci réew mi wax leen jafe-jafe yi xeeñ ci élection ba mu doon élection yu manifestation ba nu jàpp ca place de la nation ñaar fukki fan ak juróom-ñaar weeru septembre journal bi ne leader opposition bi bokk ci atel lan ca jublo mooy sàkku ci nguur gi fi ne mu sàmmonteeg élection ni nu ko yàgg defee te lépp daan tënku ci waxtaan bés bi le jour ne gannaaw waxtaan woowa amul lataa ñëw sumb processus électoral bi jëm ca yooyla élection moo tax atel fi ne daas nay ngànnaayam fas yéene jaataarloo nguuru président Bassirou Diomaye Faye ak moom premier ministre daal nay xamle ne nguur gi dafa yàgg a yox yox ci kanam yenn école yi lëjal yenn xale yi ca nanuy solo di leen aaye muuraay ak yenn xeetu colin yi te nee na loolu teguwut ci yoon ndax méngoowul ak constitution bu Sénégal waral mu sàkku ci ministre de l'éducation mu defar arrêté lu mu yéex yéex ñaar fukki fan ak juróom-ñaar weeru septembre arrêté boo xam ne école yépp a koy doxal ba ci école yi ñu naan école étrangère maanaam école bitim réew yi ndax nee na fii Sénégal kenn dootu fi nangu ñuy génne benn élève ci benn école ndax colinam wala muuraayam le étoile bi yéene kaay bi ne préparation rentrée scolaire bi premier ministre waxaat na ca waxi muuraay ji sàkku ci ministre de l'éducation mu jébbal ko arrêté boo xam ne dafay tax règlement intérieur u bépp école méngoo ak constitution bu Sénégal mi ne waruñoo beddi kenn ndax gëm-gëmam wala diineem Sonko ca l'observateur naan loolu moom daf fiy jeex école étrangère yeeg école yi ne ci réew mi ñeppay doxal dogal yi nuy bëgg a jël ndax Sénégal li mu dogal moo a mu sant ministre de l'éducation ma ngay diggee ca boobaleb yéenekaay ne école yépp danañu ko doxal vox ne jël na itam moom premier ministre fanweeri mesure yoo xam ne bu nu ko doxalee jàpp na ne ubbiteeg école booba jaar yoon moo tax fi ne état ngay avancé pion wam yéenekaay booba yi dikk ci fanweeri mesure yi premier ministre jël ngir ubbiteeg école gu mucc ayib journal bi ne démb ci alxamis premier ministre doon jiite réunion interministérielle ci rentrée waxtaanee nañu ko déficit bi yéene kaay bi ngi toll ci 4527 enseignants ñeenti junne juróomi téeméer ak ñaar fukk juróom-ñaari jàngalekat ñoom la système éducatif bi soxla njàngam ca kokki alazar ca égypte carrière jàngalekatam lii lépp lañu l'observateur di wax ci Jim Dramé mi ñu tabbu bees directeur des affaires religieuses muy dalal xel yi ca place booba ñu ko teg ne gëm-gëm ak diine yépp dana ko fonkal seeni borom te itam ñépp la fi nekkal président adversaire ci élection législative yi nu dëkmal Amadou Ba kenn ci seen adversaire politique l'observateur ca moom la xëy wax ci cong yi ko Pastef di song ak coppite yi ñuy xaar ci moom njeexital yi mën a ci image moom Amadou Ba it yéenekaay boobaa nga cay def taxaw seetlu point actu moom def taxaw seetlu ci mbiri Cheikh Issa Sall ne ana lu muy daw bay daanu moom meeru Mbuur bi taxawal parti politique boppam bees yéenekaay baa ngay fàttali ne ba Mansour Faye di weranteeg Ousmane Sonko mooy ka mooy doon taxawaayam ndax pro pouvoir lay doon wala opposition laaj la wu yéenekaay bi samp jeexal ci fàttali ñu ne moom Cheikh Issa Sall moo nekkoon secrétaire général u Mansour Faye ca délégation pour la solidarité nekkoon na itam directeur général ADM ak CDC di caisse des dépôts et consignations l'observateur moom xamal ñu waxtu woo ne parquet financier bi transmettre na ordre de poursuite yu njëkk yéenekaay bi ne ubbeegum nañu juróomi dossier am na homme d'affaires bu nu convoqué loxol enquêteurs yi daanu leen tàmbalee déglu Jérôme Bandiaki mi ne ci loxol enquêteurs yi barki démb ba tey libération ngi ñuy jox ay xibaar ci ay mbiram yéegal ñu ne ab perquisition amal nañu ko démb ca Mbour journal booba it xibaar ñu ne Woodside consigné na 40 yu teg yéenekaay bi ne redressement fiscal la dal ci kawam ATD yeeg fisc di ko bëgg a rey loola mu joxe nag mat garanti ca lañu koy laaj yéenekaay bi ne moo waral tribunal sàkku ñu dakkal recouvrement woon Aly Ngouille Ndiaye taxawal na parti politique gu boppam parti socialiste moom laas ne ñu mu lëngool ci élection législative yi lay wër mi jeexal ak Le Soleil mi ñu yëgal ne président Bassirou Diomaye Faye ngay wéy di wër këru diine yi ci Sénégal journal bi ne ni mu doxalee këru kilifa diine yi ci Sénégal ak it relation bi mu taxawal diggante état ak pouvoir spirituel bi boole kook li mu tabb directeur des affaires religieuses Njaasaan rafetlu na ko gërëm boobaleb taxawaay di ñaanal keddal ak jàmm dig